jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar fu waay nekk rek si réew mi ak si bitim réew tey nag ñoo ngi fi asalem jël si keneen mooy Dame Souguer numéro 2 war a waxtaan ak moom ginnaaw saison bi nga xam ne génn nañ ko yaakaar naa ne saison bi ubbi na tëj na si jàmm nga tëjee sa saison sa diggante ak maadi bu sap yàlla may la si ndam boobu ba léegi nag gisuñu combat yi dégg naa ay proposion bi nga am mais juboo ak promoteurs yi Dame dañ lay nuyu rek bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi bu ko defee ñu jublu ci liggéey bi waaw Moranta ginnaaw baat onze billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi lay nuyu di nuyu xalil xama di nuyu àdduna yëpp di wax baat ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant suma ñaari wajur di ñaanal suma yaay ji génn àddina yàlla suñu borom jéggal ko yërëm ko xare ko aljana ak mboolem ñoom fekk jeeg ñu ko fekk si ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal suma papa yàlla guddal ay fanam te wéral ay cëram ba mu fekkee suñu njëriñ daal di ñaanal mbokk euh, bépp waajur daal ba mu fekkee njëriñu njabootam ci barke alxuraan. Mm-hmm. am na solo saison bii ñu génn lan moo waral daam bëre ci benn combat nga ci bëre wala ñaar. non benn combat laa ci bëri nag waaw benn combat laa ci bëri mooy sama combat ak bu Zap. après bi mu jàllee doon nañ ma fi ay combat am na combat boo ne wax nañ sax presque ba juboo mais après ci la maire bi feebar. léegi comme bëgguma jël xaalisu promoteur bi te na ma du ma bëre yooyu àq la si laa ko ne ba affaire yi jàll bi affaire yi jàllee tamit après ñu doon dox samay combat mais jotul sotti daal yu bëri am na combat yu ñu ci dox nag mais sottiwul. ok promoteur la woon ak ban adversaire la woon. après taxawal sama combat ak macha allah bu Boy Niang bañ confirmé yàlla après ci la maire mais comme diggante boobu noonu ma man maa doon nekk hôpital. Mm-hmm. bugguma woon jël avance jàmbur tamit te ma ko bëre. Mm-hmm. léegi si laa waxoon nañ bàyyi ba 40 jours jàll après bi 40 jours yu jàllee waxaat nañ taxaw pour taxawalaatal combat bi mais après taxawul daal wax dëgg yàlla mm-hmm. foofu la ñuy tàmbalee waxtaan bi macha allah jël naa ko mu ne bépp journaliste bu ko jël bul ko laaj <laughs> lu xeetoog beneen mbër bu dëkk feneen lu dul waa parcelle parce que il fa que mu corriger leen yéen parce que seizième la fa teg déggagu fa mu muñal moom moo leen ameel mais yéen ameelu leen ko. waaw loolu am na seetaan naa ko seetaan naa ko ba dégg mu naan daan na xaw ma vieux top ak Baye Seras numéro 2 xaw ma nag kuy Baye Seras numéro 2 yàlla man laajte naa ko non vieux top moom daan na ko loolu moom xam naa ko xaw ma ko. mais wax dëgg yàlla bi affaire yi jàllee ba ci koor gi ba koor gi jàll Ouzin seetiwaat na ko mais moom waxu fi dara leer ndax heure ñu ko woowee daal mu naan nañu woo kii nañu woo kii nañu woo kee mais daal si moom daal la yàqoo moom. la seeti kooku lañ seeti de moom lañ seeti de woo nañ ko dañ ko njëkk a woo sax bi ñu ko njëkk a dafa ne nañ bàyyi ba combat Ama Baldé bi jàll boobu Ama Baldé Gris Bordeaux ñu ngi waaj a bëri yàggul loolu yàggul ñu ne waaw ñu teg ci ay deux le 15 août bi ñu naan waa xam mu naan nañ woo kii nañ woo kii xam tamit des fois mbëri moom suñu bëgg da bëreem dañuy laaj prix boo xamante duñ bëree wala ñu naan la tey ëllëg suba si biir ngoon ba mooy loolu noonu ba après Ousseyn sax seet waatoon na adversaire bañ d'accord ci adversaire boobu mais après dañoo xëy tamit adversaire boobu def choc quoi loolu moo yàq la allah boobu la taxaw lan ngeen xalaat na yéen waa parcelle faay yooyu moo nekk si yéen ba mu sawar ci seen mbojj. non macha allah daa bëri wax rek waaye amuñu benn faay. non wallahi daa bëri wax rek macha allah daa bëri wax rek yàlla da ko dimbali mu dal ci vieux top rek yaakaar nit mooy loolu noonu moom vieux sax ni mu demee la rek. bu rëy vieux top daan ko jël bu rëy nga ne. <laughs> waaye daa daw daa daw làmb am fa benn paquet rek vieux après jéeg-jéeg jum ci làmb bi laa vieux mën ku ko mën ah yow macha allah daa bëri wax rek waaye du du dara loo xamante ni war na ñoo mën a sonal. ay preuve la de parce que ba mu jógee ci première défaite am ba tey série de victoire la teg la de. waaw macha allah mbër la moom mi ngi bëri di daan wax dëgg yàlla man sax man mi di wax yow sax xamu na woon am na défaite combat ma seetaan yëpp wax dëgg yàlla moo daan ba ci combat am bu mujj bii moo maaji maaji mm-hmm. mais wax dëgg yàlla macha allah moom su làmb waxoon dëgg sax duñu ma wax di wax macha allah làmb tërë rek ñuy wax di wax waaw Demba woon waaw Demba waaw mais macha allah moomu noonu macha allah suñu bëree woon tamit waaw moom si ñuy naan kii daam su gee ko daan ci lay bokk de waaye du bokk si ñuy naan kii moo daan daam su incha allah jamono ji fi mu ne nii ah yàlla moo yor ndam de waaye kuy bëreeg daam su gee ñu si di soobee yàlla hmm. daam boo lan moo changé si diggante bi. changé si diggante bi mooy maa jël sama bopp sama décision bopp parce que xam naa li nekk si te yàlla dafa de man dama daan bëre xam nga jóge ci defet i sopp su may bëree di di bëre waaleel gaay loolu nag après man maa dem ba dindi ko sama bopp parce que damaa toog man kese ma xam xam sama bopp xam li may daj ci làmb xam coono yi ma ciy daj contact ma xam xool ñi may bëreel ak ñi may bëreel ci làmb man ma décider sama bopp xam ne man lii man maa ko mën a dindi sama bopp mais du dara wallaay lazim gars yi nekk fi naan c'est que cest ma jël ma jël combat jël maadi bu zab nag lu ne ma dégg daa mën a bëre daam war a woon jël kii da ngaa jóge ci ma noppi waa mburu mbapat la lu ne dégg naaw combat bi sóoru sax dafa bañoon man maa ko jëlal sama bopp man combat parce que dama seraan maari xam ko gis li muy bëri ma xam ne kii war naa mën a bëri ak moom facilement parce que bërikat moo neex a bëral li wax ji di bëri yëpp bërikat moo neex a bëral parce que da ngeen di bëri wallaahi ma jël sama bopp combat bi dem entraîné ji gars yi nekk fa di ñi sama gaalañ mujj gi dañu ne yow lan mooy affaire bi ndax yaa ngi préparé combat bi kay la ñaan ma ne ñaan gi yegg seegul dem entraîné ba mu leer ma ne am naa doole ma soog benn yoon laa te semaine maanaam jour si semaine làmb laa génn pare naa ci parce que man instant woo xam naa li ma manqué man xam naa li ma manqué doo ay question la ñaan ak yooyu parce ay dañ la rek wallahi waaw nga nekk série de défaite léegi ñu a daanu da ngay a alxuraan da ngay a daanu mais soo demee liggéey yow nga xam la manqué ñëw kii wallahi fii yàlla rek a fi nekk keneen new parce que des nga dem si sëriñ yi lay ñaanal fekk fa ñoo kon nga war a xam ni kon fii yàllaa fi ne léegi li ci des mooy da liggéey gëm sa bopp nga dem appliquer yàlla suñu borom ànd ak yow te damaa ñëw appliquer yàlla suñu borom ànd ak man damaa bëre ba si mardi ba ba ma demee CNG di jël sama reliquat dajeeg benn ménagère xam nga la ma wax làmb ji bu damay ñàkk parce que ñi la daan ñëpp maa dee leen dàq bëre ma ne ko non mais lii mooy làmb walaay naa si ma ko mhm. na ko mais man xam naa li nekk si mhm. ni man du mu cuune xam xam naa ne am na lu ma ci mën daal même bu mu. ok Dame euh, euh, carrière bi boo dee xool macha allah am na ndaanaan yoo bëree parce que comme ni ma ko premier combat nga bëreeg Zarko 2 bëreeg euh, ki nga xam ne mooy Aliou Maam numéro 2 Aliou Mané numéro 2 bëreeg Alliance Balde bëreeg Jacob Balde bëreeg xale ba nu mu tuddati Source Bouss bëreeg Fourière bëreeg Mbaye Tine Junior bëreeg Oli Gëns xale ba Pokola bëreeg doomu Njàmbur bëreeg Madi bu Sab nga bëreeg ñëpp tey ñuy wax ne moo bokk ci meilleur espoir yi Sako Balde aussi tamit ñu wax ne ci meilleur lutteur yi ci la bokk lool boo ko déggee yow mi nga xamante bi ni jëflante nga ak Pokola mu daan la nga jëflante ak Sako daan ko ana yow tey fi nga nekk par rapport ban leçon nga siy tiré. waaw leçon bi ñu siy tiré bi si njëkk mooy àddina moom yàlla suñu borom ku nekk noppi na say mbir quoi parce que lim bind sa jëbi ala kulli haal ngay jaar. waaw mooy mooy mooy soo seetloo rek Sakho Balde wax na ko wax na ko ci signature am moog caatu yoofu mu nekk nit koo xam ne nag bii mooy ñaari ma lu rafet bu njëkk bi ma wax ni loolu yàgg na sax boobu nekkul sax série de victoire bi boobu yaa ko woon boobu mi ngi toog Pokola muy wax mm. mu yàlla defal ko non macha allah wax dëgg yàlla te même bu ñu dajee ay mm. nekk nit koo wax moom tamit day déglu maa koy ñaanal jàmm moom di ko sàkku ci moom bu baax mm. mooy li may wax rek àddina moom ku nekk ak li li li yàlla bind sa jëbi man loolu moom wax dëgg yàlla jàppee moo ko dara macha allah damay ñaan yàlla suñu borom sax mu gën a mu gën a dolli seen seen seen seen i waaw man nag ma liggéey xam ne li ma war a lekk man it dinaa ko lekk incha allahu rabi si kàttanu yàlla mu parce que tey suñu demee ba ñooñu ñu leen boole ci meilleurs lutteurs te man ma bëreeg ñoom man boole guñu ma ci kon damay liggéey rek xam ne alaa kulli xaal fii ak déwén ay yeneen année yu si waxuma la ñu boole ma ci waaye mën naa koo jël incha naa fa 4 combat waaw. ak benn ak benn defet waaw. Ah, Pikine la amel de. non Pikine <laughs> non Pikine moom <laughs> non Pikine kay xam nga Pikine moom mooy loolu moo tax suñuy booy Pikine yi suñuy wax si ñoom damay sawar booy Pikine sawar si ñoom de parce que man xam naa ne mën naa bëri ñoom. billaay xam naa ne mën naa bëri ñoom te sarax bi génn na ba pare. non jeex na boobu da a sampaan dënd. waaye foofu non man samay adversaire fa la ñu sax xanaa xamoo. samay adversaire. ku fay sa Eh, Eumeu Junior yee ñaar combat la. pour ak ga. Eh, combat bu neexee gi noonu. waaw moom soo seetloo sax le 9 juin combat bi passe bu bëri moog teg soog bi. maa moom waroon nañ koo bëre tamit. waaw waroon nañ koo bëre wax dëgg yàlla. ba keroog rek am na ko doon def live éviter ndeysaan yaa ngi maa tamit ngay wax loolu noonu gars yi def live ci TikTok bi tam lu am solo la. waaw parce que ñooñu tam dañuy génne ay combat yi neex keroog am na ko mm. doon def live signature nañ fa nag ku nekk wax na li muy wax waaye na fexe nag ba su promoteur bi seesee na jël xaalis bi te bañ def ni booy def ni ay booy yi booy noonu eh, non non ragal de na naa xam ne rafet nga lamb yi ragal de mais estaf yi la les gars yi ñoo bàyyitul mbëri ñu bëri seen biir man moo tax yàlla def na man ñaari nit man su sama ménagère nangoo sóora pare naa man nekk ma fi di laaj mille personnes parce que yow tey jii la promoteur nga bëri ñoom jox ñu mi xam nga xam la moom mais gis nga staff yi ñoo war a bàyyi booy ñu dem bëri ji fii bëri na combat yi war a taxaw yoo xam ne staff ko yàq wax mbëri yëpp bëri a jël ñu naan waaye kuy kooku xamuñu kooku léegi yow nag bu dee mbër bi da xof rek da ngay bàyyi loolay problème bi mais man xam naa suñu ko seedi jee dina ko jël ma seen si ñoo ak gars yi am na ñeneen de mm. waaw du lim turu kenn nag mais am na ñeneen man ki ma bëgg a bëreel dëgg saa bokkal la wallaahi lancé moom laa bëgg a bëri xam nga ay caaxaan la yàlla xam ne moom laa bëgg a wane suñ ko ba passé moo bëri grand combat maa bëri spécial maa daan mu daanu waaw bi may bëri maa di moom moo bëri x moom laa bëgg a jël nag sa parce que ça dañ koy wax gars yi gars yi di daw yow loo gis ci moom xam dañ koy wax gars yi di daw xam nga keroog seetaan naa la yéen ñaar ngay ngay lim ba lim ma waaye waxul waxul ci man dama ko so moom laa <laughs> mu daan te yow laa yàgg topp parce que yaa làmb yow xam làmb yow da ngay nit ki boo ko jour bi nga bëri woon ak ki mu bëriloon saa bokkal saa bokkal bu ëmma seen moom laa wax saa bokkal bi ëmma seen te bi ànd ak booy sey numéro 2 man bo soxla mu ëmma seen de saa bokkal laa wax bi ànd ak booy sey numéro 2 saa bokkal te keroog signature bi nga indi woon booy sey numéro 2 yow yow laa soxla yow moom laa bëgg a wane. loo bëgg a ci moom yan faay la am. ak a bëri. waaye victoire ak ñi ngay daan xam nga chaque jour wax naa ko keroog des fois gis benn booy ñu lim ñu lim treize victoire billaay du ci daan benn mbër bu baax nga gis benn mbër ñu limal ko trois victoire mu daan ñaar ñu baax victoire victoire ak ñi ngay daan billaay saa bokkul suñu bëree moo wane ko wóor na yàlla kooku suñu génnee Eumeu Sène sax moom mu génn ci làmb suñ génnee Eumeu ah, wax loolu nag parce que nag école de lutte Boy Sey moom moo fa nekkan ak Boy Sey 2 ñoo bëri ay combat yu bëree ma seetaan ay dóor tànk Iba Mar ba ñëw arène nationale tànk fuuf ñoo ko dàq dóor tànk foofu ñun ku ne la ñuy dóor tànk su su ma jëloon suñu su ma dóoree tànk ci ginnaaw Eumeu Sène lay dali ci ngaan dóor tànk wóor yàlla billaay saa boo xam dama ko soxla yàlla xam ne waxuma ay waxu interview yi di wallaay lazim damaa bëgg bëre ak moom te waxoon naa la ko keroog wallaay waxoon naa la ko waxaat naa la ko tey billaay suñu ma ma jël ko daan ko incha allah si kàttanu yàlla mbaam déedéet ok bu du saa bokkal Pikine ban adversaire nga fa amaat bu du saa bokkal bu du saa bokkal man de saa bokkal laa soxla waaw saa bokkal laa bëgg a ok bala maa ñëw ci Modou mi ñu nommé meilleur lutteur parce que pour l'instant yaakaar naa ne ñun ñenn ci ñu yor micro xaaj bi jox nañ ko ko xamagul nag AMPS bu ñëwee ñoom lan la ñuy wax parce que tamit ñu benn kii la boo xamante bi nii tamit ñooy génne meilleur lutteur ñoo koy nommé tey place bi ma la fekk fan la. waa fii mooy fii mooy fii mooy waa kër Fallou Kol mais fii ñu ngi leen di wax waa kër Serigne Saliou. gérant bi di Talla Diouf di nekk suma waaye nekk nit koo xam ci man. Mm-hmm. wallaahi nit koo xamante ni li muy daj ci man sax promoteur du ma ko fay. yàlla xam na ko di mu yàgg te li ma gën a neex ci moom mooy damaa bëre daanu bërewaat daanu ci fourrière mu woo ba ma ñëw mu na ma la mooy sa problème ma ne ko man amul benn problème mu jël xaalis bu bari dem abonel ma saal yàlla xam na ay weer abonel ma saal ay weer nag laa wax boole ko xam nga am na yooyu téléphone bu ma yor na moom ko jox moom téléphone bu ma yor moom ko jox boole ko yeneen yoo xam ne sax ba pare yemale ko si man ba samay nit sax samay nit dañuy am solo ñëw mu jàppale leen yàlla xam na ko mu nekk nit koo xam ne nit kuy nit kuy sonn ci man lool lool lool barki alxuraan waaw di ko ñaanal jàmm bu baax a baax ak magam fàllu kol ak kam sëñ Modou xam nga ñaari sëñ Modou yi ak waa place bi nga ne ñoom laa fekk ku ci mel ne ñoom Amana Badou ménagère kooku moom laa naa ménagère ndax moo ma njëkk a jox combat moo ma fekk Cambérène Ousseyne Laay mii moo ma doon tëgg mbapat mu ne ma kañ dem Cambérène am na ko fay tëgg mbapat ñu dem mu jox la làmb Ousseyne Laay làmb jooju du ma mës a fàtte 5000 francs sax la ma fayoon <laughs> wallaahi 5000 <laughs> francs la ma fayoon ci làmb sama ménagère maa ngi koy sant bu baax a gars nekk fi ñoom xaarima gars yi noonu ñoom bamba gars yi ñoom ñëpp waa kër Fallou Kolda maa leen sant xam di wax gars nag waaw pour madame madame Guèye war am ci yii nii ak gars ku ci bëgg daal nga ñëw fii HLM xam nga moom moom moom moo koy jaay daal waaw maa ngi koy sant a a a a baax ko may lii mu am ci làmb ginnaaw entraînement ak ñaanu waajur loo yaakaar ne moo ko may parce que yaakaar naa ne saison ren bii wane na boppam cinq novembre première er janvier même pas deux mois yaakaar naa ay cinq jours la mat mu bëre ci roi des arènes lu mësul am u làmb. lu li nga wax rek entrain li mooy li ñu wax sànq nga ne ma mooy priorité. lu mu am entraînement moo ko may. kooku ñun ñi ñun ñoo xam ne ñooy mbëru ndaw yi dañuy nekk moom entraînement ñun ñuy bàyyi moom mu ciy nekk sama combat ak doomu jàmbur ci weeru koor laa wax préparé. Mhm. sax benn jour danaan jugee ba lagrose ñëw ba fii woo téléphone ñu ñëw contact wallahi dañ daan contact ba minuit ñu pare yaakaar dañuy ñibbi mu téye ñu waat ci géej gi ay renforcement ba une heure du matin ci mbër bu mag waaw moom soo ñëwee fekk suñu biir sax doo xam ndax moom mooy mbër bu mag bi wala moom mooy mbër bu ndaw te fu fu mu la ñu ngi lay conseil lu lay jëmal kanam sportif ni lay doxalee ni lay defalee ni lay defalee su weesoo ay mbalaganteeg noonu kooku lu mu am ci làmb da ko mérité moo tax ñun ay problème wallahi man mën naa ne sax li tax tey jii mooy li ma li tax tey jii ma gën a ñëwaat ci làmb moom ci la bokk parce que dama dama dama bari ñu woon fréquentation nag gaa nag ñoo bokk écrit mais bi ñu commencé fréquenter comme nii may nekk ay këram yooyu noonu yàggul mais dama gis ni muy doxalee xool ni muy gën a motivé waat Modou. bokk na ne entraînement mooy priorité Modou maanaam moom même tey yi bu nekkoon ci ay yitteem ba une heure du matin su ñëwee balaa moo tëdd ci la même bu dee daw waa sportif la moom da def sportif ci ay waxi ci ay jëfinam léegi nag yow bu dee nit nga soo nekkee moom doo ko topp pour ay man maay ànd ak Modou Lo déedéet da topp ngir xool li muy def yow nga roy ci loolu noonu waaw ci loolu noonu man loolu loolu loolu loolu loolu dafa nekk ci loo xam ne dafa maa neex ci moom wallaahi man li may comme ay duñu ay génération sax wax dëgg yàlla bay ànd mais bu dee entraînement moom damay ànd ak moom di xool li muy def tey jii su ma àndee man kase man nit ma koy def mu nekk nit koo xamante ni nit ku nit ku beneen affaire daal wallahi moom daal yàlla ko yàlla defal jàmm. voilà yë bien moom yëgul li ko yàlla def moom moom su ñëwee sax soo xamul yow am na nooy comporté woo da ngay comme tey jii suñu leen fekkee ngeen toog yéen ñaar suñu jegee Modou am aan suñu ñëwee yow mën na ñaa jaawale Modou Lo yow alors moom mooy Modou mais moom heure boo moom mi lay wax defeel nii sportif nii la war a doxalee sportif nii la war a defee te heure la waxee nag suñ ko defee meilleur lutteur loolu moom jaarut na parce que ñaar ñi mu boole la moom ñaar ñi mu boole la bu doon sax da boole si début saison bi fin saison bi sax mm-hmm. daan leen rek jaarut na waxuma laa nag mu boole leen si loo xamante ni si 45 jours loo xamante ni man mi man préparé naa si combat bëri si si ndax bi ma bëri ak Marie yaakaar naa ñoo préparé ndoo waaw mm-hmm. décembre la bëri moom mu bëri novembre ak ak ak janvier kon kooku beneen affaire daal wax dëgg yàlla pour man meilleur lutteur bi moom loolu nekkul loo xamante ni sax luñu luñ lu war a laam-laame gaa nag ñeneen ñi ci lim tamit saison bi dem nañ ci ay combats ay combats doy waar wax dëgg yàlla mais ku ci bëre ñaar di nga ne benn bi du risque ku ci bëre ñaar soo seetloo baax li ma la benn benn voilà benn risque benn tàngal ci mais moom nag ñaari mu jël yëpp mënoo cee pronostiquer benn bu mu dugg bi mu duggee ci Ama Baldé gaay naan su Ama Baldé dal ci kawam bi mu duggee ci Boy Niang gaay naan mm-hmm. mais ñaar yëpp da gis ni dafa ñëw avec def ko avec la manière waaw moo tax daal meilleur lutteur bi même bu ko jëlee tamit mérité na ko daal mérité na ko mérité na ko bu baax a baax a baax mu nekk grand boo xam ne grand bu la ba pare di sonn ci booy wax dëgg yàlla parce que bi muy préparé boo ñaa dafa tombé nag booy yu bëri amandoo combat man mi ci laa bokk te ñun ñëpp dafa jàpp suñuy combat ñun ñëpp boole ko préparation combat kon dañ koy ñaanal daal moom li bëgg moo xam yàlla suñu borom defal ko ko ak mbër yëpp daal waaw. daam kontaan naa am mbégte ak kontaan ma bàyyi la nga tàggoo. waaw yow it maa ngi kontaan bu baax a baax a baax Mour Anta si yow parce que lii dafa nekkoon loo xam ne dama ko dama ko yàgg rêvé waaw waroon nañu ko yàgg def man dafa nekkoon loo xam ne yàggoon naa bëgg foofu tamit dama la fi dog parce que day bëri ñoo xamante ni des fois dañuy wax interview mais dañuy dem sax ba xaw la mere yaakaar na leneen la mais nun nag ñëpp lañ fi nekkal comme niñ koy waxee heure bu jotee rek yomb te yaakaar naa ne bu fekkee ne jël ak jël chaque jour ñooy bokk nekkandoo géej ñooy bokk nekkandoo place Modou Baye Fall mais mi ngi nii lu jot daal yomb. yomb waaw lu leer lool loolu mooy àdduna sax li ma naan àdduna moom résumé la rek yàlla noppi na yàlla noppi na ci ay mbiram bu yàgg ñun ñoo xamul rek ñoo fi nekk di teel teel mais daal maa lay sant bu baax a baax a baax di santaat xalil xam nga di santaat xalil bu baax a baax a baax caméraman bi di ko ñaanal jàmm moom it ko sàkk ci moom di tamit waa place bi comme ni ñu ko waxee waa kër Serigne Saliou Kol bi ñu ngi leen di santaat bu a baax taala xam nga ak soxnaam Ndeye Khady ak euh, sëñ Modou ak soxnaam yaa Seyda ñoom ñëpp ñu leen sant bu baax ak sama copain Mbaj ak soxnaam soxna May ñu leen sant baax di nuyu sama doom ji Iliman sama xarit bi rek mooy xale bi nga xamante ni moom la ñu gis yaa sama doom la ah, <laughs> maa ngi koy nuyu baax nag waaw borom place la voilà du sama doom de maa taq rek Iliman seex la sax maa ngi koy di nuyu Ndey Faatu tamit seexam bi maa leen di nuyu bu baax a baax di nuyu sama waa koñ sama gars yi nga ñoom lay àndal nga xam ne bi ñu jàppee ba léegi bàyyiwuñ ku si mel ni Amana maa leen sant ak yëpp maa leen sant bu baax a baax su ma booy ñoom kamu Cheikh Cissé gaynde borom États-Unis Modou Mana xam nga Maroc ak euh, mën naa ne borom euh, Mauritanie su ma gaayam ñoom laay àndal ñoom gaynde ñoom ñëpp boo xam jaase Carbo maa leen sant bu baax a baax sama gaay waa bandi bi xam nga di sandaat tamit suma ménagère comme ni ma ko waxee rek Alioune Badara Cissé moom maa ngi koy sandaat baax suma ménagère suma waay la daal moom di ko wax ne ménagère passe magal bi ñëwagul nag naka teew <laughs> xam nga di ñëpp di gërëm ñëpp di sant suñu waa waa Kër Galo fi nga am ne fa laa dëkk waa xawlu kaw xawlu suuf ndéere càmbeen kokki Diop Kër Ma Diop Daaru Ndiaye Lamsinga Cumbuleen Daaru Seek ak ak waa Pekes waa Njoka waa Sugeer tamit maa leen sant bu baax a baax a baax waa Sugeer waa na Ndaxaar xam nga waa Pekes waa Ngaay ñëpp maa leen sant sant waa Jëleeru Silla Baye Modou maa ngi koy sant bu baax ak waa Areba yëpp ñoom Baye Bara xam nga ñoom Maam Cheikh xam nga ñoom Amdi Moustapha waa Jëleeru ñoom El Hadj gars yooyu yëpp maa leen sant waa Areba maa leen sant bu baax di sant képp ko daal day jàppale Dame Sugeer numéro 2 maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ku ma limul rek waaw. ju waaw juum ma sax mais waaw waaw waaw suma grand maîtrise maa sant bu baax amu fayam grand maître waaw moom it day sonn si man maa ngi koy sant bu baax abaax baax borom conseil suma papa Lat Fall Touba waa Touba itam maa leen sant bu baax waaw waa Salba ñoom bulo gars yi yëpp sant naa leen suma papa Lat Fall Jiiri Fall gars yëpp ñoom Ibra Galas bu ndaw waa Touba yëpp waa Daaru Minam gi yëpp suma ñoom tante Awa ñoom tante Mbenn xam nga ñoom ñëpp maa leen sant bu baax a baax baax a ak ñoom Bintu Seye yëpp. waaw di sant ñëpp daal di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm tam ñu dem ci Touba ci jàmm te ñëwaat ak jàmm ci barke alxuraan daal macha allah mbokk yi mi ngi noonu Dame Souguer numéro 2 bu Rock énergie lañ mbokk di leen jox di daje ba beneen yoon ci Gaston Production Xalil jërëjëf